fi lfitnati kabni labuni laa mu ne bu fitna jollee yàlla nañ ci yàlla musal nee na bul doon aw sëllu wala mbote mu ne na nga na nga doon aw sëllu wala nga doon mbote wala nga doon barmol ni ñu koy waxee mu ne ndax lan mu ne bu boobaa da néew doole ba ku jóg du la war waaye it fekk na amagoo meew ba ku jóg ratt la li ciy jànge mooy fitna xëy na mënta ñàkk waaye bu dikkee kon li ñu imaam Ali jàngal mooy ndekete fitna bu jollee ku ne loo yor ci énergie jërul nga di ko njëkke di génnentu di wane ne nii laa toll ci doole wala nii laa tollu ci am-am wala nii laa tollu ci man-man ndaxte fitna ni ñu koy waxee course fond la waaye doonul course vitesse am xel moo koy lijjanti waaye du doole moo koy lijjanti ni ñu koy nettalee ci jamonoy tubaab yi amoon benn gouverneur walla kilifa la woon ci tubaab yi daal mu dajale chef village ya nekk ca la mu yilif am ci nag dëkk bu ma am ci nit koo xam ne na mu bindoo xëy na amul kàttan ci gis-gis mu ñëw ne ko ñuy présenté wu ba àgg ci moom kooku jóg taxaw ne ko man maa fi toogal dëkk sàngam maay borom dëkk tubaab bi di ko xool ne ko waaw yow la mu ne ko waaw man la mu laajaat ko ko ne ko man yow la mu ne ko waaw ba muy ñetti yoon waa ji ne ko waaw ab dëkk dañ koy yenn wala dañ koy lijjanti mu ne ko kon yow la xam naa ne yaay borom dëkk mu wax ne saa yu fitna jollee na nga def sa bopp ni mbote barmool wala aw sëllu mbote mooy xar mu soog a juddu barmool mooy gileem gu buy soog a judd wala bu màggagut sëllu mooy nag wuy soog a judd nee na bu ko defee kenn du la mën a war wala mu di la rat mu waxaati alayhi salaam ci ñaareel bi ne nit kii gën a tuutal boppam mooy ki bëgge lu jóg nga bëgg ko am lu jóg nga bëgg koo moom di dajale rek tey moomeel nee na kooku mooy kii tuutal boppam ndax nit moo ëpp alal bu jàppee ne alal moo koy tax a mat su boobaa mànkite dikkal na ko nee na nit ki tànnal boppam toroxtaane nag mooy kii weer boppam yàlla suturaal ko mel ni man xëy yoruma lu ma jële tata yoruma lu dut wenn nit kenn ñëw di ma laaj ma ne ko uu yaay koy lii de su ma ko yoroon génn réew mi <laughs> génn nga sa bopp réew mi lu may wax mooy bi may jóg di lii rek la fàgg woon boobaa dina xam ne li nga ko wax dëgg la tey xëy na ba ngay jóge sa kër fa nga ko fàggoo am na loo ko wàcc waaye mënoo caa jóg dem kon neena na nit bu ko yàlla teralee te loolu doon phénomène boo xam ne ci jamono ji ci émission interactive yi am ci rajo yi dañ koy def ngir yokk seen audience waaye mi ngi yàq lu bare bari seet nañ ku ci mën a wax wala sa kàddu jot ci ñoom mat nay wax ndax da dégg léeg-léeg koo xam ne danaan damaa defoon nangam aw ñaawteef ci ak sangam jékki ba léegi loolu nekk ci samam xel